mu doon loo xamante ne fierté la ci moom fierté la ci Sénégal fierté la ci ñi nga xamante ne mooy famille kon nag doon loo xamante ne aussi ñëpp ci war kontaan ñu gis jeune bu mel ni daal di initier lu rafet lii ce beau bijou qui nous est offert par Kassé Mabo merci mon frère et félicitations alors on va pas s'attarder sur des futilités on va juste donner la parole Sira Sira dina leen defal li nga xamante ne mooy résumé ki nga xamante ne nii mooy Kassé le PDG merci beaucoup Sira vous avez la parole. merci bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux alors euh, je voudrais avant de démarrer cette euh, belle soirée euh, nous lever et euh, observer une minute de silence euh, à l'endroit des décédés de de l'accident de ce matin on nous parle de 40 poussières de décédés donc voilà on va se recueillir et puis euh, prier pour eux. Voilà, merci beaucoup. Nous vous tous et à toutes la bienvenue ici chez Kasemabo Sewing. Alors Kassemabo, c'est le Mozart de la mode sénégalaise. C'est un jeune, un jeune dynamique, un jeune qui se bat jour et nuit depuis 2012, mais bien avant, car il a commencé la mode grâce à son père qui était déjà styliste, mais qui vivait en Côte d'Ivoire. Il a fait ses preuves en, en Côte d'Ivoire, ce qui a poussé son fils à vouloir quand même lancer, se lancer dans ce milieu. Il a commencé euh, donc très très jeune et il a côtoyé les meilleurs stylistes du Sénégal. notamment un grand monsieur que tout le monde connaît au Sénégal, monsieur Sen, donc il est décédé lui aussi, paix à son âme, de Mandel Couture, tout le monde connaît Mandel Couture. Auparavant, il était à Darussalam euh, Couture. Après cela, il a travaillé avec beaucoup d'autres stylistes aussi célèbres. Et en 2012, il a décidé de créer sa propre marque, marque donc Kasebambo Sailing. Et depuis lors, il enchaîne les collections, les défilés, les Fashion Week, les festivals de mode. Il a fait Gorée Fashion Week. Nous-mêmes, on s'est rencontrés en 2018 à Gorée pour le Gorée Fashion Week. Ensuite, Cap Skering Fashion Week. Voilà. Et depuis lors, il fait son bonhomme de chemin dans ce milieu-là. Et commence à habiller certaines personnalités, mais il a commencé très tôt à les habiller, des chanteurs, des stylistes, des créateurs, mais aussi des acteurs du cinéma, des acteurs de séries. On sait qu'il y a beaucoup de séries actuellement au Sénégal. Donc on va citer quelques noms. Youssou il a habillé Youssou Actuellement, c'est lui l'habilleur d'Ousmane Sonko. Il est l'habilleur de Sorna Aida Diallo de Cher Tchoun. Il habille donc euh, Manel Job, Kane Diallo, Sidi, Sidi Samb, pour ne citer que cela. Alors, il participe encore à de grands événements qui passent inaperçus et récemment, il a fait euh, une très belle collection pour les acteurs donc de RAF Prod, c'était au Pullman. je m'en vais accueillir euh, sous vos applaudissements s'il vous plaît monsieur Kassemabo euh, Sewing. salaamaaleykum euh, maa ngi nuyu euh, ñi fi teew ñëpp euh, merci beaucoup Sira di jégalu bu baax ci yéex a commencé bi di nuyu presse bi fi teew yëpp di nuyu suma xarit yi suma yaay yi suma clientèle yi nga xam ne ñoom ma may doole ginnaaw yàlla lépp lu ñu mën rek ñoom la tout d'abord maa ngi tàmbalee di sant bu baax sumay ñaari waajur avant ma def dara di sant bu baax suma yaay. di ko ñaanal euh, fan bu gudd ak wér di euh, ñaanal bu baax sama papa aussi euh, di ko ñaanal fan bu gudd ak wér di nuyu aussi suma frère Serigne Fallou di nuyu suma yeneen frère yëpp alhamdulilah bi ñu tàmbalee liggéey bi ba tey foog naa ne foog naa ne dañ ñu dafa am ñu ñu jàppale. Euh, ñu ñu jàppale euh, mun naa ne euh, sunu famille la mais dama ciy jiital clientèle yi nga xamante ni bii nii ñoom la ñu yàlla booleel depuis boobu ba tey ñu nekk ak ñoom voilà li ma wax léegi rek mooy lépp lu ñu mën tey ñoom la voilà di leen remercier bu baax siraa li mu wax léegi ci jaar-jaar bi c'est vrai du ma ci jaarat voilà kenn rek laa xamante ni bii nii Euh, dama koy dama koy ñaanal bu baax fi mu jëm gënal ko fi mu jugee euh, muy euh, Issa Sène man tey bu ma bëggee ñaw wala ma am amour bi moom la voilà parce que dafa am lu bëree bëri loo xamante ni dafa ma marqué ci ci ci ci ci moom ci dundam voilà fi may njëkk a dooree mooy di sant bu baax suma benn mag bu tudd Mor ci moom laa njëkk a jaar di nuyu. Euh, Basirou Soxna depuis Paris euh, euh, moom aussi dafa bokk ci ñi ma tàggat voilà di nuyu As moom aussi dafa bokk ci ñu ma tàggat maa ngi sant nag bu baax a baax a baax a baax sama benn frère bu nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay muy Serigne Fallou maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax voilà di leen jaajëfal bu baax xam naa ne xaw na guddi tuuti que dañuy commencer questions yi rapidement comme sa ñu mën a ñu mën a libérer euh, sunu xarit yi comme ça ñu wàcc ci suuf visiter showroom bi euh, voilà. voilà merci beaucoup tàkk ko bu baax a ni ngeen ko déggee c'est un na bi nga xamante ni war nañu ko encourager ci li nga xamante ne def na ko ci Sénégal ci parcours bu bi nga xamante ne nii Sira daal na ko fi cité ay ndaanaan yu mag a mag ay gaal mi ci réew mi. su waa ji tey boo xoolee bokk na ci ñi nga xamante ni moo leen di sañseel macha allah kon euh, frère félicitations et bonne continuation dañuy jàll juste ci interview yi voilà avec euh, ñi nga xamante ni mooy c'est la presse comme ça ñu daal di commencer question réponse yi wala on va juste tenir ça en wolof langue nationale comme ça tamit euh, dinañ gën a mën a élargir mën a dugg ci détail yëpp ci lu jëm ci showroom bi nga xamante mooy Kassimabo wala merci beaucoup ngi lay fay Arouna. yow li ma foogoon ne li ma foogoon e ne ma am quarante cinquante ans la foogoon mais alhamdulilah jërëjëf ci sa farlu ak lii woye bi lu mel nii boo ko xalaatee am koo jaar tey jii mébét yan mébét mébét mooy projet ci français yan mébét nga am yoo xamante ne boo sampee fii ba pare lan nga bëgg def pour Sénégal jëriñoo ci lu yëpp ci mbirum action sociale ak solidarité ndimbal jot nit dimbal bi xew ci àdduna bi yan xalaat ngay def wala def nga ko ba pare ñaari laa góor troisième question bi xam naa ne moom ndax laa dëkk moom waa ndax laa yow yaa ngi ci est-ce fii rek nga amagum xalaat ndax am nga mbébét yow def ko ci Sénégal nekk am si sa comme loolu di ko jox rek et cetera et merci beaucoup euh, li ma wax léegi rek euh, moom laay répété waat en fait ñun mode bi foog naa ne Euh, passion bi moom euh, lañ ci njëkk a jiital avant tout euh, parce que foog naa ne bi ñuy door di liggéey ba léegi foog naa ne personnalité yi ñu yu ñu yu ñu ñu yàlla booleel ñuy liggéey ak ñoom ku ñu liggéeyal sa day sedd benn beneen bi mooy li tax ma ne ñun passion bi lañ ci jiital ba pare foog naa ne passion bi moom moo a lii voilà ay ndaw lañ nag yoo xamante ne bii nii Euh, bëgguñu lu dul euh, suñu réew bëgguñu lu dul tamit euh, monde Sénégal jëm ci kanam parce que am na yoo xam ne dañ ko xaw a tuumaranke tuuti voilà ñun en tant que ay ay jeunes yu farlu yu yuy góorgóorlu bëgg nañ yóbbu monde fii fu fu fu fu kenn dul xalaat voilà c'est vrai que am na yoo xam ne dafa laaj liggéey te liggéey boobu ñu ngi ci mais yaakamtiwuñu nag ay ndaw lañ mais yaakamtiwuñu ñu ngi koy def étape par étape Euh, keroog yàlla di dogal euh, li ci bëgg ñu am ko ci. voilà li jëm ci euh, xool yeneen bërëb pour def Café Mabo Swing bien sûr ñu ngi ci Café Mabo Swing foog naa ne marque bi bëgg na waxuma la sax Sénégal mais bëgg nañ mu wër partout dans le monde voilà dëkk bu nekk ñuy tudd Café Mabo Swing voilà bëgg nañ marque bi toll foofu voilà merci. waaw waaw waaw mais xam nga ndimbal bi moom foog naa ne euh, ñun ci la ñu yar voilà dimbalee euh, ku ñu tane ba ci euh, li ñuy liggéey des fois mun nga am benn client bu ñëw ci yow mais xaalisam du matee li mu bëgg voilà foofu foog naa ne di nga dawal au moins benn social lu jëm ci beneen social yi foog naa ne am na yoo xam ne moom doo toog ci presse bi nii di ko wax voilà da ngay def rek ci suuf soxlawul ñu koy wax ci kaw. voilà mais ñu ngi ci bu baax a baax parce que ci la ñu yar merci beaucoup. d'autres questions. waaw en français. Massamba Camara. Massamba. Hmm. vous êtes un jeune talentueux. vous êtes un jeune talentueux et euh, vous avez eu un parcours phénoménal hmm. et jeune euh, vous avez parlé de la passion c'est vrai la passion est là parce que on ne peut pas faire quelque chose la passion. Quand vous avez la passion de n'importe quelle activité, ça veut dire que vous déjà fait un grand pas. Il y a un adage africain qui dit la poule ne donne jamais du poison à ses poussins. Vous avez hérité, n'est-ce pas, cette compétence de ton papa. Aujourd'hui, vous êtes, je ne dis pas que vous mais vous êtes sur le Qu'est-ce que vous comptez faire pour l'avenir pour permettre à ces jeunes qui vous ont ressemblé, ces jeunes qui voient aujourd'hui ce que vous faites, parce que vous avez habillé beaucoup d'artistes. Ils sont peut-être à l'ombre, ils ne sont pas visiblement, mais à partir de ce lancement, les gens vont vous découvrir. Et qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir pour ce pays, pour ces jeunes qui voudront te ressembler Et c'est cassé. Euh, merci beaucoup mon frère euh, ma ko ci wolof rek ci euh, li nga question bi nga posé ñun ay jeunes lañ foog naa ne équipe bu Casamance Swing c'est vrai que am na ci ñu ma maaseel mais foog naa ne équipe bi yëpp samay morom la ñuy samay rakk voilà ah am na ay jeunes yu ñuy formé ñun fi voilà am na ci ay jeunes yoo xamante ne bii nii ay xale yu ndaw lañ. Euh, te foog naa ne liggéey bi ci ëpp sax ñoom ñoo koy def voilà ñoom ñu ngi leen di former bu baax euh, aussi euh, may ñaax rek sama moromu jeunes yi di leen gën a wax ne liggéey rek moo fi mooy mooy mooy mooy mooy mooy lépp en fait voilà ñun suñuy waajur yar nañ ñu ci liggéey mais aussi

Ok, moi je suis venu parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux quelque chose qui m'a impressionné. Et ça fait pas très longtemps. Et j'ai partagé. Pourquoi j'ai partagé aussi C'est vrai que c'est très joli, mais je vis que c'est un Sénégalais. am na lu mu wax sànq lu important mooy que complexe bi benn journaliste posé na ko fii complexe bi ni ñi di am di solo man lii par exemple man. chaque jeudi j'ai un tailleur dama dem ci moom ne ko ñëwal ma benn affaire chaque jeudi parce que j'ai fait de la chronique culturelle du ma promouvoir loo xam ne moomuñu ko c'est un combat cest dire que moo tax je félicite la presse là qui est présente ici yéen a mën a fexe c'est un combat xeex la parce que il faut libérer l'esprit te loolu sa commence par ça moi j'ai vu quelque chose qui m'a impressionné ma ne mais lii sama dëkk la et puis ma gis mu tudd nag ma xool muy kasema ba ma ne voilà parce que casamance bu gisee maaboo cest dire que te moom cest dire que sànq dem ko ne génnuloo fi nga lii da nga koo moom parce que ñun suñ cosaan lan la mooy tissu. tissu la ñun ñoo créé tissu c'est maabo donc il est dedans ça demul jëli leneen moo tax c'est pas difficile pour lui ce qu'il fait c'est automatique man dem koy féliciter maa ngi ci ginnaawam et puis ak fu mu mënta doon parce que qu'on a aussi des opportunités yoo xam ne ñu mu nañ ko Euh, parce que tout simplement li mu def c'est moom je trouve que c'est un c'est juste ça et voilà ces propos étaient bien requis juste euh, je vais passer un message les il faut toujours miser euh, sur la consommation locale voilà comme ni ma ko waxee parce que lii lañu moom aussi mooy suñu cosaan voilà li ngay dem di waliyaani feneen am ko fii c'est mieux de consommer ici au Sénégal parce que le costume bi nga mën a sol suba aussi. mën nga sol li nga xamante ni mooy tenue traditionnelle yi fii ci Sénégal donc c'est un message à à à passer voilà ak tous les Sénégalais de miser sur la consommation locale voilà on va donner la parole à Anta. salaamaaleykum ma wàccee ko tuuti voilà euh, ngi maa ngi tudd Antay bon di cliente bu Kassé maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp vraiment euh, damay témoigner juste ci Kassé Maabo mi parce que sànq rek am na benn journaliste bu posé question looy def si social ak keneen ku ko laaj affaire de jaar-jaar donc ma fekkee ko donc euh, normalement dama ci war a témoigner en ce qui concerne Kassé côté jaar-jaaram man ak moom bi ñuy xamante loolu yàgg na depuis Yoff mu ngi yoroon atelier bu ndaw di góorgóorlu ma mën a témoigner jomam ak fulaam ak dynamique bëgg lu muy def donc nit ki. soo ko ñëwalee si bësam nga xamal ko yooyu valeur ak yooyu jikko normalement soo ko waxulee doo gor aussi ci côté sociale bi may wax ne kase ñun ñii di ay clientam dañuy am soxla am xew walla am dara ñëw woo ko à la dernière minute mu jox ñu tënu ñu dem ba suñu soxla faju ñu ñëwul jox ko xaalisam donc muy nit ku baax muy un jeune boo xam ne dafa am jom kase yëg na ay client wam man mii barki démb dama doon ngénte sama doom il see déplacé ñëw toog fa ndaw tal ma tey bu mënoon na ne kii jaay ak jënd laa séq ak moom donc nit ku baax mu nekk jeune nekk sénégalais nekk koo xamante ne nii am na jom bëgg na lu muy def vraiment ñu ngi tàllal loxo ñëpp man en tant que cliente bu ma demee ba koy wax nii si kii yi te ñemew ma sax rajo yi ak kii donc ça veut dire que kase toll na ma foofu jeune bu am jom la ku baax la bëgg lu muy def la di tàllal loxo sénégalais yépp ñu jàpp si te dooleel ko xam ne suñu suñu frère la voilà merci beaucoup. Merci, Et voilà, si, si, si, Kandia est là. Voilà, Kandia, venez s'il vous plaît. Oui, Kandia. voilà, venez. Comme ça, Voilà, Donc, avant de Voilà, comme vous êtes connu depuis 2018, c'est un beau vieux temps. Donc c'est vraiment important aussi de, de se à son égard. voilà comme ni ngeen ko gisee aussi ci catalogue bi sur les images loolu yëpp ngeen gis moom moom mooy ki ko defar vous pouvez prendre en pincée voilà moom kase ma bo aussi moo ko defar mu doon rafet rafet rafet pas mal d'artistes au Sénégal mi ngi leen di solal ok monsieur Kane salaamaaleykum à tout le maa ngi nuyu képp ki fi nekk sa tur ak sa sant et voilà ça fait plaisir d'être là parce que kase maak moom yàgg nañ je pense que euh, boobu ba tey maak moom ñu ngi ñu ngi jokkoo et gis naa ni évolution bi petit à petit mi ngi def euh, yoonam euh, man bëri na ay yére yoo xam ne maa koy sol yérem ay yérem la donc euh, c'est plaisir c'est un plaisir xam nga le fait que mu dëgg ma li nga xam ne mooy lii euh, di wax rek damay daanale fi nga xam ne moom la damay damay yokk rek li nga xam ne ndaw si fi nekkoon léegi-léegi li mu doon wax mooy genre euh, pour que ñu gën ko dooleel gën ko jàppale xam ne euh, être entrepreneur au Sénégal c'est pas du tout facile donc produit bi nga xam ne moom la Sénégalais yi di def ñun Sénégalais yi ñu ñoo ko war a jàppale pour que mu jëm ci kanam man nag dama ñëw rek en tant que en tant que frère ah ak koo xam ne tamit euh, moo koy jàppale parce que euh, man bokk naa ci ñi nga xam ne tamit ay collaborateur am nañ parce que à chaque fois damay gis li nga xam ne moom lay def ma koy jël di ko jéem a fësal ñi nga xam ne ñoo may jege et je me sens très bien avec euh, la tenue de de Kassimabo donc maa ngi koy ñaanal. Euh, li nga xam ne moom la samp tey yàlla ko si yàlla defal jàmm mu doon ay boutique yu bëri bëri bëri ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mon frère du courage Kasema jiminani burado aye yela la la la la kongo ndaye na na la la li la la junu gore yi fu laak fay da borom kase maabo shumaabo ci binani burado aye yela yo yele alelen yo li la la la bravo bravo. Voilà, merci, c'est Rio. On vous applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup à